assalamu alaykum mbokk internet yu seen football tv nuyu naa leen bu baax a baax ziar leen gis naa seen message si vidéo bi mu dugal micro trottoir bi ku nekk wax na xalaatam concept bi neex na leen donc xaar leen yeneen émission xaar leen yeneen interview xaar leen yeneen reportage sur seen football tv incha allah fii xamante ne bëgg ngeen ñu yegg fa incha allah avec l'aide du bon Dieu xam nga yàlla ngi fi dinañ fa yegg incha allah bu neexee yàlla maintenant nag tey dama leen ñëw rek juste wax leen information bi am tey gis ngeen ne suñu gaynde dina war a am ñaari jongante contre Zambie ak contre Cap Vert ci kaw loolu nag profité nañ si dem fële stade Diamniadio xool stade bi xool liggéey bi fu mu toll jour yi gis nañ fa Abdou Diallo gis nañ fa Sadio Mané gis nañ fa Ismaël Sarr yëpp ñoo ngi fa bu ñu fa ñëwee nag ñi fay liggéey tàccu nañ leen kontaan nañ ñeneen doon nañ wax turu Sadio Mané ñii wax turu Edouard Mendy ci si Edouard Mendy nekk fa mais dañ ko doon félicité par por ak euh, Ligue des champions bi xamante ne jël na ko donc stade bi gis ngeen ne avancé na bu baax a baax a baax te lii rek la ñuy xaar boo amee ay joueurs classe mondiale nekk première nation africaine da nga war am stade bu baax bal bi daw te li ñu wax ci stade bi côté terrain dina baax pelouse bu baax la ñuy am

pour vous dire que rek terrain bu baax dafa am solo boo gisee ñoo ngi football stade Thiès defaraat nañ ko am nañ ci mbégte par ak tribune yooyu mais lii gën a soxal Sénégalais yi wala lii gën a soxal joueurs yi xam ne dañu a baax donc la ñuy xaar mooy que liggéey bi pare gaaw ñoom Sadio Mané ñoom Abdou Diallo ñoom Kalidou mën a football si stade boobu yeneen joueurs yi xamante ne xëy na dañu nekk di xalaat Sofiane Diop Soumaré wala sax Boubacar Camara li ñu mel mën na leen influencer donc mbokk yi nag ma ngeen ma wax seen xalaat ak seen gis-gis ci commentaire yi ma leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax ba beneen seen sur Senfootball TV.